jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu moom mooy soo ko jot ci njolloon gën a fës ci xibaar fas nañ waxtaan ak yéen ci li nga moom moo jëm nag ci wàllu covid 19 bi Sénégal na fi toll nii am na keneen ko xam ne bakkanam rod na ci mu ngi nekk nit ko xam ngi am juróom benn juróom-ñaar fukki ak juróom la am dëgg ca Parcelles Assainies yi fi mu toll nii si moo tax nag lim bi toll ci juróom fukki nit ak juróom yoo xam ñàkk seen bakkan ci wàllu coronavirus bi nga xam ne jii nag lañ ko xam ne di fàttali kat am na tey jii nag juróom-ñaar fukki ak juróom yoo xam ne am nañ ko juróomi nag ci ay cas communautaire lañ bokk ci waago ñaar Yoff Grand Yoff Touba ñoom ne tey gox yi nga xam ne yëf na leen laal lool dinañ ci ñëw yéen ci biir xibaar ni mu gën a yaatoo ñëw yéen tamit ci li jëm nag ci wàllu xeex ak wàllu kur bi te li nga xam ne rek yëkkati na ko ci ay wàllu laajte bokk na ci nag li tax ñàkk ñu ñàkk te dugal yëngu ci wàllu aada ak diine nañ tëgul sax ki nga xam moo nekk Mamadou Yuri Sall bi nga xam ne xam-xam dafa ci loolu jëm ci wàllu woowu noonu tey ji moo nekkoon gan ba ag ba amar seen émission objection loolu moo gën a fës ci xibaari Assane Thioune moo nekk ci wàllu xarala El Hadj Malick Sénégal nag am na tey ji fukki nit ak juróom-ñett yoo xam ñàkk nañ seen bakkan ki mujjee gaañ nag nekk nit koo xam nga am juróom benn ñaar fukki at ak juróom la am nekkoon nag ñu ngi ko yóbboon internet ko centre QMO nekk hôpital bu Fann ñuy wax ci dool loolu tey ji am na juróom-ñaar fukki nit ak juróom xam ne am nañu si nga xam moo nekk covid 19 ñu ngi leen nag euh, gis am na juróom yoo xam ne am nañ ci transmission communautaire bi bokk na ci nag waagu ñaay Touba ak tamit Grand Yoff leeral ak docteur Aloyse Waly Diouf directeur cabinet ministre bi ñu dénk wàllu paj gi ñu mu indi ci ci junni ak ñetti téeméer fukk ak juróom fukk ak ñett test yi ñu def juróom ñetti fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom ñaar fukki cas contact ak juróomi cas communautaire benn bi ci waagu ñaay benn bi ci yoof ñaari ci grand yoof benn bi ci Touba juróom ñaar ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service de réanimation yi hôpital Fann ñeenti cas hôpital principal ñaari cas hôpital régional Ziguinchor benn cas ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi des ci hôpital ci hôpitaux yi seen wërgu-yaram seen yaram mu ngi am tan Sénégal am na tey fukk juróom-ñetteel yi cas de décès bi nga xam ne feebar bi moo ko indi muy benn góor bu am 75 ans dëkkoon ci Parcelles Assainies ñàkk na bakkanam tey dimanche 10 mai 2020 ci fajar bi bi 6 heures 15 jotee ci centre Kouémo bu hôpital Fann ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jaalee njabootam ci bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom lañu njëkk am Sénégal wàññi na junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti cas juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñetti wër nañ si fukk ak juróom ñett ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu structure hospitalière yi junni ak ñeent fukk ak ñeenti fukk cas ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe. mu nekkoon docteur Abdoulaye Diouf ñu wax ci xeex ak wàllu wopsos di Covid 19. ak tamit euh, li nga xam ne ki nga xam ne nag mu ngi fekk baax ci produit école du Caire ñaawlu nag li tax nga xam ne rek boolewuñ ci nag yëngu ci wàllu diine nee na kat seen ñàkk ñàkk ñàkk ba la moo tax nag yëf yi daal di gën di law bu leen ci dugaloon sax ci dina tax mu gën a wàññi kàddu yi correspondant nekk Mamadou Yuri Sall bind nag ay téere yu bëri potentialité des diplômés al analyse des données du Sénégal wax na ne kat discours religieux bi nag moom moo gën a am solo ci li nga xam ne nag mooy tolluwaay réew mi ak ni nga xam ne réew mi bindee moom moo Mamadou Yuri Sall tey jii moo nekkoon ganuk El Hadji Babacar Gueye ci émission objection moom yomul di gëstukat nekk te modernisation modernisation mathématique wàllu nag lecture ak li ne mel su ko defee rek daal fi nag mën a xeex ak lii jëm nag ci wàllu Covid 19 bi nga xam moo lëmbee àdduna bi yëpp. ñuy jàpp ne coronavirus bi nag euh, nekk na loo xam ne du feebar boo xam ne nag maanaam nag euh, dañ dañ ko war a am di ko rus ak yi ni mel kàddu yi ko rotal moom moo nekk nag dem ba Diallo nekk tamit moom kii xelal gouverneur Sédhiou ci wàllu paj gi ñu déglu ko mu indi ci ay leeral ci micro Moussa Dramé. personnel sanitaire bi naan ñu bi. mais fi mu nekk nii xeex bi ñëpp la war. que à tous les niveaux nit ñi war nañu jóg xam ne nag lii du ay caaxaan du ay fo parce que caaxaan bu demee bay rey nit dootul caaxaan. kon nag war nañu jël conscience ci loolu xam ni feebar bi mu ngi fi ñu. jël yenn matukaay yi nga xam ni personnel sanitaire wax nañ ko muy li ñuy tuddee geste barrière yi maanaam bu ñu ne ku nekk na nga toog fa nga nekk donc dafa am solo ndax dañuy bañ nit jóge fële indi fii jële ko fii yóbbu ko fële ndaxte feebar bi du demal boppam donc nit a koy jëlee fenn yóbbu ko feneen kon nag loolu également lu am solo la ak distanciation sociale itam maanaam nit ñi bu ñu nekkee dafa am benn distance boo xam ne war na nekk seen diggante. jéem a wàll wàllante bi. tey jii politique bu ministère de la santé. mooy gestion extra-hospitalière maanaam léegi am na si cas yoo xam ni jaratul muy dem hôpital ndax feebar bi feebar bu xaw a doy waar la da koy yor sax doo xam ni yor nga ko yow ndax du la tëral du la def dara waaw mais bu ñu xoolee dinañu xam ni yow yor nga ko si ñëpp bu si ñëpp taxawee yàlla mën nañu dimbale mbas mi dem ni mu gën a gaaw mbas mi dina gën a gaaw ba tey ci wàllu xibaar la ñuy wax ak tamit ci wàllu Euh, euh, mbas euh, boobu noonu ak tamit jaaxle gi nga xam ne am na loolu nag jëm ci li ñu nga xam ne nag ñooy mag yi maanaam ñu am am ñu nga xam seen at dafa yokk lool jëm nag ci yi nga xam ne faral di faat dafay bëri lool ndax ñooñu nag fi mu toll nii li ñu war def mooy gën leen a bàyyi xel bokk na nag ci li nga xam ne kat moom la ñu digteel ay recommandation dañ ci ànd ak kii di Josette Bianchi Kali Pa Diom ak mère Ndeye Saly ñoom ñaar ñëpp ay nitu troisième âge la ñaata at nga am. 67 ans. ni taux de mortalité bu coronavirus bi wéy di yokk ci ñi nga xamante ni ay nitu troisième âge lañu tax na ba ñoom tiitaange la ñuy àndal looloo tax ba fu ne ni lépp ca kër ga lañ koy defee génn yi moom daanaka wàññi nañu ko bu baax a baax te dolli ci gën a ñoŋal lii di prévention bi. presque je ne sors dinaa génn surtout le matin comme ça. damay doxantu cinq à quatre kilomètres et puis je man dama daan doxantu laay am um, ba feebar ñëwee ngi toog sama kër man dematuma fenn fenn laa demat damay instruction yi ñu ciy wax daal su may génn dama koy ab strictement et puis si may revenir c'est le fait la même chose je lave les mains et puis doxantootuma le leer tànk yi day méttee métti ba may toog damay rek su ma xëyee raxas sama loxo moom pek ordinateur beeg ak sel ca famille Ndiaye moom boroom kër gee feebar daanaka ay atan ji loolu tax seen yaay dafa gën a dëgëral fi mu ne nii saytu gi te du kenn ku nekk lay bàyyi fu ne nii nga laal paa bi rawatina sax ñii di ay doomam paa bi dafa feebaroon moom avant corona bi di tàmbali te moom tamit nitu troisième âge moo tax suñu yaay xaaw dëgëral mesure de prévention yi si côté am léegi boo génnee kër gi sax même si que ni boo njegsee da ngay raxasu mais moom moom mooy veiller si loolu noonu balaa ngay laal dara si kër gi wala ngay jege paa bi te bu dul loolu tamit boo génnee tamit ba dellu si daf lay wax pour nga dem sangu boo paree nga jël yére yi nga génnaale woon nga dem weer ko ci naaj bi ko léegi presque boo xoolee kenn laalatul paa bi moom mooy toppatoo paa bi mooy gérer paa bi def lépp parce que moom du sax génn no léegi moom mënatoo juge si biti rek ñëw laal paa bi par rapport ak bu njëkk ni nga daan ñëwee tooñ kafoo ak réew moom noonu. ñooñee di ay nitu troisième âge ñenn si ñoom donte sax dañuy génn fu mu ne nii faaw ñu takk seen masque ak yore li di gel antiseptique ña mënatul ñoom dem ak dikk saytu gi dañ koo gën a dëgëral ngir bañe ñu laale ak kenn ku nekk. xibaaru bitim réew. dañ ko doore fële ca Brésil euh, bi euh, doore ko fële nga xam ne ca euh, ca Amérique sax ak lu jëm nag ci ginnaaw bi nga xam ne kat am na cas njëkk ci wàllu coronavirus président Amérique nag moom euh, da doon weddi waaye léegi nag fi mu moo ko def loolu nag euh, mooy ci Amérique ci xam ne bëgg-bëggam leen rek la fexe ba wàllu koom gi daal di sama démb dikkil gi daal di siwaat ñuy jàpp nekk na loo xam ne lu fës la fi mu toll nii ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci confinement fële ca ca Chine ñuy jàpp ne nag euh, déconfinement bi nag ca Chine moom na nag ay jaaxlewaat yoo xam dañuy ragal kat feeru daal di jógaat foofu noonu parce que ñi nga ci wàllu paj euh, gi nag wax nañu kat am na ay cas contamination yoo xam ne am na ci week-end bi ñu nekk ñaar rek ñu ko jógee fële ca extérieur dëkk ba benn ñu ko gis nag fële ca Wuhan euh, loolu nag di ko ci nekk fële ca bët gannaaw dëkk ba li nga xam moo nekk ca euh, Chine ba tey ci wàllu xibaar la ñuy wax ak tamit lu jëm ci nag Brésil bi nga xam ne nag tey ji ñu jàpp ni ñàkk seen bakkan bëri na bokk na ci juróom benn dëkk yi nga xam ne kat wopp si da leen lëmbe loolu am na nag 10 000 morts xam ne ko nañ ko fële ca Brésil yawata dëkk yoo xam ne mel ni Sao Paulo Rio de Janeiro ak feew foo xam ne kat feeru daan na fay fës bu baax a baax moo tax sax parlement bi ak cour suprême bi nag dakk wax tey jii nag dañu jàpp ñetti fan koy dé dëj dëj yoo xam ne kat ngir ñi seen bakkan roj ci li jëm ci wàllu Covid 19 bi fukki simili ak euh, benn moo taf lu ci benn waxtu ci jolloor gi ñu ànd ak soxna Xadi Seen ci wàllu rétro bi. dal leen jàmm mbokk yi ci xibaar yu gën a fës ci ay bés yi ñu nekk ci Sud FM seen rajo mbas mi di coronavirus deltuwul ginnaaw ci Sénégal ñi ci ñàkk seen bakkan di gën yokk yi gën a yokk ci ay bés yi nag Sénégal juróom-ñetti nit danañ ci ñàkk seen i bakkan lépp lépp boo ko boolee rek muy fukk ak juróom-ñaari nit yu ci faatu ci coronavirus. ba ci samedi si ñi nga xamante ne amee nañu coronavirus mu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñeent ak juróom-ñaar nit ñoo mu nekk nii sonn nañu loolu ñu ànd ceeg docteur Aloyse Diouf di directeur de cabinet bu ministère de la santé et de l' action sociale. tey samedi 9 mai 2020 ministère de la santé et de l' sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom-benn fukk ak juróom-ñeent cas contact ñeenti cas communautaire benn ci Fass juróom ci Parcelles Assainies ñaar ci Mbao ñaar ci Médina ñeent ci Touba fanweer ak ñaar ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu ci bësu tey juróom ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi principal ak hôpital fan ñeneen ñi des hôpital seen wërgu yaram mu ngi am tan tey Sénégal am na fukk juróom benneeli kaawu malade boo xam ne dafa ñàkk bakkanam malade bu amoon Covid 19 benn jigéen la bu amoon trent 37 ans dëkkoon ci Fass yàlla nangu na bakkanam tey samedi ci fajar di 4 heures du matin jotee ci centre Kouemo bu hôpital Fann ki nga xam ne nag yàlla dafa nangu bakkanam dafa yoroon benn maladie chronique ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jaalee njabootam ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi na junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak ñeenti cas juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak ñett wër nañu si fukk jur àndu nañ seen bakkan kenn ki ñu delloo ko ci dëkk bi mu nekk jóge woon juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom des si suñu hôpitaux yi ñu leen di toppatoo. Covid 19 daal di ne saraax ci département bu Diourbel ab xale bu am ñetti at la papam daal di wàll moom nag dafay liggéey ci hôpital Ndaamatu bu Touba ñu teewlu ci Adama Ndiaye. département bu Njaareem am kaam bu njëkk ci wàllu coronavirus mu di xale bu am ñetti at bu nga xamante ne papam moo ko wal ginnaaw ba muy liggéey ci hôpital Ndamatu bu Touba kenn ci agent yi nga xamante ne moom la bokkal service dafa amoon tawat bi ci noonu nag lañ ko conseillé woon ne daal bu mu def voyage bi teewul nag mu ñëw fi nga xamante ne mooy njaareem bi mu see nag ci la yëg ay métit yu nga xamante ne jëm na ci wàllu Covid 19 biñ ko contrôlé nag ci la am doomu jàngaro ji fekk na wal na. doomam bu am ñetti at juróomi membre famille boobu yóbbu nañ leen fi nga xamante ne moo koy pompe te ñu ko def di élément service d'hygiène Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. yaakaar mën na am ak jëfandikoo artemisia fii ci Sénégal ndax protocole bi yor wàllub saytu bi daal dina koy valider ba jox ko waa ministère de la santé comité scientifique bi nga xamante ne nag moo gàlloo saytu gi essai clinique garab bi nga xamante ne waa Madagascar ñoo ko daal di ñoom euh, nangu nañu ko daal di euh, jëfe bu ñu sukkandikoo ci chef service bu yor parasitologie pharmaceutique ca faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop waaye faw rek mu am ay conditions ñu teg ngir rek ñu mën a jëfandikoo li nga xamante ni moom la ñu duppee Covid organique professeur Daouda Ndiaye dañu koy teewlu ak El Hadj Malick Ndiaye. donc xam nañ ne am na pouvoir boo xam ne day rey ay yenn microbes yu mel ni ay parasites plasmodium wala schistosome wala ay virus. gis nañu également lu euh, euh, garab boo xam ne euh, dina indi problème yu bari ci nit. loolu yàgg nañ ko xam te xam nañ ko buñ ko gëstoo et am nañ ñi bokk ci liggéey bi liggéey nañ ci euh, ñu ne léegi donc bu loolu weesoo également est ce que buñ ko jëlee dina baax ci nit ñi dina indi lorange également du indi résistance parce que nañ wax ne artémisinin également mooy loo xam ne ci wàllu subir moom lañ ci boole pour faj ko te bëgguñu liy jeex moo di problème mais ñu ne donc dañ ko encadré ba loolu ci am donc moo tax ñu ne loolu comme na dañ koy jël boole ak ay produits sénégalais donc covid organisme ko ci boole ko ak ñaari produits sénégalais yoo xam ne fii lañ ko liggéeyee ci ay extrait de plante lañu également comme artemisia boobu ak yeneen lañ ci boole ñu ñëw ñu saytu leen maintenant ñu ne ministre ñu li ñu bind ñu tëgg ñu ne comme ñun gisaguñ gisuñu produit bi bu produit bi ñëwee dañuy xool fiche technique am ak note d'utilisation lépp dinañ ko saytu ñu xool est-ce que li ñu wax ci kayit bi moo nekk ci produit bu baax dañ koy testé ñun ci la le plan chimique li ñuy wax moo ci nekk moo ci nekk est amul lu ci lore est-ce que amul lu ci dugal lu ñu xamul est-ce que bu dool boo xam ne war cee bopp dugal ko ci suuf frauduleusement wala voilà est-ce que daal lépp leer na bu ñu demee chimiquement ba gis nañu lépp leer na ci produit bi lépp lu ñuy wax moo ci nekk te amul leneen lu ciy lor bu boobaa ak même suñu produit sénégalais ñu xool est-ce que amul ay produits yoo xam ne jóge ci suuf si dugg ci gàncax bi balaal ci produit bi loolu yëpp dinañ ko xool test ko bu fekkee ne nag jàll na boobu boobaa ñu joog ko jël jóbbal ko ay nit ñu mën ko tester ci transforme extra clinique ñu nga xam ne ñii dañoo am doomu jàngar bi feebar nañ ñi dañ ko am feebaruñu ak ñi nga xam ne yaakaar nañu contact nañ te amaguñ ko loolu juróom fukki xale yu am ñeent jàpp fukki at ak juróom ñaar ñoo am li nga xamante ne mooy coronavirus ci ñoom nag mun nañ ci wàññi ay bébé ak i taalibe ba tax na ministre bu yor wàllu njaboot geek euh, aar xale yi ànd ceeg ministre de l'intérieur ak waa santé daal di lancé rek ab dispositif spécial ngir aar xale yi nga xamante ne seen situation métti na loolu ba tax na rek daal di génnee ci mbedd mi ñaari junni xale ak fukk ak juróom ñu teewlu ci maam Ngor Diouf mooy secretaire général bu ministère de la femme famille ak genre ak protection de l'enfant nii mbas mi di lawe ak nii xale yi ko nekk ci mbedd bi ak ay jafe-jafe tey xale yu mucc ñu ci feebar bi lu ëpp juróom fukki xale am nañ feebar bi tey ci Sénégal am na ay bébé am na ay xale ndongo daara am na xale yu nekk ci mbedd bi am na xale yu dëkk bitim réew alhamdulilah ñëpp ñu ngi leen di faj am nañu wér mais day rek mbas mi bàyyiwul kenn te xale rawat na ñu nekk ci mbedd bi ñi ñu aarul mun nañ gën a lawaale mun nañ gën a tasaare et liñ ci constaté tam tey jii mu ci Dakar ak feneen ñu ngi gis xale ci mbedd bi loolu dafa war a dakk war nañ def kéem kàttan génn xal yépp ci mbedd bi ngir aar ci mbas mi ndaxte bu dul lool mun nañ gën a am jàngoro bi mun nañ gën a wasaare surtout jamono ji nga xam ne cas communautaire yi mi gën a law leneen li gis tam mooy ci ay béréb yu bëri ñu ngi fexe jël xale yi téye leen ci ay béréb maanaam jéem leen confiner mais confinement boobu tam li ci ëpp mënul dëppoo ak li nga xam ne waa wér-gi-yaram ak li kaaraange xale yi laaj loolu tam day indiwaat rek ay gàllankoor mun na tam tas li nga xam ne nii moo di wàllu mbas mi loolu nag ñi koy def ñu leen di ñaan kéem kattan bu ñu mu respecté li nga xam ne nii mooy mesures yi ci war xale yi nañ fexe ñu delloo leen seen kër loolu la président de la république joxoñ sant ministère de la famille ak jëwriñ yooyu yore santé intérieur ak justice ñu def taxawaay bu am solo taxaw tem pour développer programme boo xam ne nii xale yépp dinañ leen aar ci mbas mi rawat na ñu nekk ci mbedd bi ñu nekk ci ay conditions de santé ak sécurité yoo xam ne nii yu doy waar la. loolu moo tax maa ngi fësal tey ci kanam Sénégal yëpp dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile muy digal boo xam ne président moo ko santaane pour ñu gën a takku gën a baral suñu tànk taxaw kéem kattan pour que li ñu ci doon def pour zéro enfant dans la rue ba ëgg si fii ñu gën ko baral gën ko taxawal ba nga xam ne nii dinañ aar xale yëpp ba mbas mi du leen dal bu jógee mbas mi tam ci génnee jàmm kon leen aar. dañu koy jeexalee ak Serigne Mohamed Niass imam bu grande mosquée bu Léona Niassène moom nag la police daal di woolu niki aljuma ji gannaaw ba mu jiitee jullib juma bi foofee ca Léona Niassène ci waxtu ji nga xamante ni état d'urgence moo fi am ñu tere bépp mbooloo moom nag ci mujjantal gi daal dinañ koy euh, bàyyi mbokk yi li ma fi nekkoon xibaar yu gën a fës ci ba si ñu nekk ci Sud FM seen rajo jaa ngeen jëf. El Hadj Malick Ndiaye. ñaar fukki simili moo toftalu ci benn waxtu la ñu ci wàllu xibaar doon faram-fàccee bokk na ci jëm nag ci wàllu wopp si di covid 19 nga xam ne nag am na tey ji koo xam ne bakkanam rot na ci ca mu ngi am nag juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent dëkk ca Parcelles Assainies tey ci fajar gi la gaañu fële centre Keur bu nekk fële ca Fann tey ji nag amaan na ñoo xam ne ñu am wopp suñu bees toll ci juróom-ñaar fukki nag ñoom ay cas contact suivi lañ juróom yi nag ay cas communautaire lañ bokk na ci Grand Yoff Kasor ak tamit ne bindkat la moom nekk jàngkat na kat ñàkk cee dugal moo tax yi fi daal cas communautaire yi tey ji moom moo nekkoon ganuk El Hadj Ibrahima ci émission objection ah, xadis seen ak wàllu rëtt bi nag moo ndar képp xibaar di sant di gërëm baax Assane Thioum nekkoon ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadji Malick Ndiaye yeneen i xibaar yeneen jamono jàngeen jëf